ba ci ay lusophone ak maghreb yéen kaay gi nee na li nga xam ne moo wundu bés bi nag maanaam mooy célébrer excellence africaine président ba jóob ci juróomeelu édition African Leadership Awardship bi nga xam ne moom la ñu doon amal ca diwaanu New York nay wax ne Afrique jamono ji maanaam am na lépp ngir nag daal di suqaliko waaye Afrique dafa war a suqaliko te nag ay doomu réewam daal di koy seen bopp nee na Afrique lépp ma ngi fii te Afrique ñoo war a défendre seen modèle économique ak seen yéen kaay gi nag nee na bi mooy juróomeelu édition African Leadership Awards ñett yu njëkk yi Paris la ko defee woon ñaari yi ñu defee ko New York waaye nag sixième édition bi Dubaï la ñu koy defee yéen kaay gi nag nee na mbir la moo xam ne réussir total moo ca am li am ci yéen kaay gi de la na moo jëm ci contrat 45 milliards yi nga xam ne moom la ñuy wax ni ministère bi ñu dénk wàllum environnement moo ko jënd ay armes jamono ji coow li ba léegi fayagu la ndax ëpp ñaar fukki milliards ci surfacturation yoo xam ne moom lañ kaay gi di ñu xëy fekk fa Cheikh Bamba Dièye nee na Ousmane Sonko am na sañ-sañe lànk ba tëdd sa naaj wa bañ a def li nga xam ne mooy tes ADN bu dee amul confiance ci ñii nga xam ne ñoo fi nekk Ousmane Sonko am na si sañ-sañe te nag sunu loi réew maanaam amul benn yoon boo xam ne forcé na ko ngir mu def li nga xam ne mooy test ADN yéene kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Mambay Niang moom nag nee na Ousmane Sonko bu nangu ta def test ADN bi loolee mooy firndeel ne moom daf cee laale te bëggul dëgg gi feeña te nag Ousmane Sonko na leer ne dina def test ADN par force bu ne nag dem na procès waxi Mambay Niang la ma ngi ci yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na Aminata Touré tamit yàgg liggéeyul ngir Macky waaye nag ay intérêt rek lay sàmm Mame Mbaye président Macky dañu ko war a ndax mooy solution ci réew mi yéen kaay gi du l'Observateur borom parti réew mi di Idrissa Seck moom nag dajee naa ki ñoñam idi lan lay waajal loole la journal bi xëy di laaj journal bi nee na en tout cas responsable parti réew mi ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi réclamé candidature Idrissa Seck 2024 yéen kaay gi di rapport de interne bu gendarmerie yéen kay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa maître Ciré Clédor Ly mi nga xam ne moo koy layal moom nag nee na Pape dañu ko bëgg a noppiloo yéen kay gi di Walf Fadjri nee na lu jëm ci wàllum division de fausse nouvelle violation du secret défense la ñu koy toppee yéen kay gi di Source A ñu xëy fekkaat fa maître Ciré Clédor Ly nee na Pape Alé dañu ko enlevé ginnaaw bi ñu ko enlevé dañu ko daal di kidnappé journaliste Fall la ñu ko fekk moom Pape Alé Niang mu gaare ab otom di changer li nga xam ne mooy pënam ba 15 heures jotee la ko teg loxo maanaam yóbbu ko nag teg ko ci banque bi ba 22 heures doo ko dégloo Déthié Fall nee na démocratie jamono ji dañu ko agressé yéen a kaay gi di nee na kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo taxawa ngir nag xeexal ñi nga xam ne dañu leen a jàpp te wàllum politique tax ak wàllum parparloo samedi ji ñu génn ci week-end bi ñoom dañu doon amal manifestation waaye nag lu toll ci fukk ak juróom ñaar ñoom teg nañu leen loxo tey ji la ñuy janoo ak procureur maanaam tey ji la leen di defeere yéen a kaay Quotidien nee na njiitu mi di président Macky Sall wàññi na njëgug dund gi ndax lu jëm ci wàllum ceeb beek diwlin ji ak suukar si ak lu soxal wàllum location bi loolee wàññi nañu ko yéen a kaay gi di la refey Quotidien moom nag nee na Macky Sall dafay tuur lëndëm askanu Sénégal ndax lu soxal wàllum location bi maanaam lopp deux cent pour cent na ci location bi kon bu fi wàññee vingt pour cent maanaam quatre vingt pour cent ba léegi moo des ci yokku location bi bu ñu sukkandikoo ci la refey Quotidien ndax nee na loi bi nga xam ne voté woon nañ ko fee loolee nag dafa yokkoon joote ko fi wote lu toll ci deux cent pour cent la